jeewali iblisa isnataytuhu biya wali Madadu mukarim ci maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp maa ngi siyaar bu baax a baax yéen waa 7info TV leen baax a baax leen xamal ni liggéey moom nii rek la di soññiwaat suñu bopp rek di soññaat ñëpp nag darajay maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp di xamal ne moom liggéey maam Cheikh Ibrahima Fall moom amul tànk ginnaaw tànk kanam kase kase kase kase la am barke Cheikh Ibrahima Fall Lamp leen xamal ni nag mbir moom nii rek la ma seetaan ma ñeetaan maam leen ñaanal nag gudd fan ak wér yam aaju faj ñuy làmb di daj maanaam di wér saa su ne nag di mën a demal sëriñ bi ci lépp darajay Cheikh Ibrahima Fall Lamp waaw ñu leen tuubalaat bu baax a baax a baax nag siyaar bu baax a baax nag jaa ngeen jëf laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah fa laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah fa laa ilaaha illallaah ni ma loo faal yéen ma ndey doonay biir faal ak bitaa laa ilaaha illallaah fa laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah fa laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ni ma la gën mën a doole bi rek biti barke maam Serif ajëf ñu waaw salaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi ziar bu baax waaw ñu ngi nii ci liggéey bi comme ni ñu koy faral di waxee rek Baye Fall yëpp a ngi nii barke Borom Touba mboolem buntu kër Cheikh Ibrahima yëpp ñëpp a ngi fi comme ni ma ko faral di waxee sànq rek euh, liggéey bi moom saa su nekk niir lañ ciy defee pas-pas ak yéene barke Sëriñ Tuubaa amul xalaat amul télé amul dara dañ ciy nekk rek jëfe ndigal bàyyi tere barke maam Serap Fall kenn ku nekk ci ñun xam na ne maanaam liggéey bi moom nii rek lay doxee saa su nekk. barke Serigne si suba ba léegi Baye Fall yaa ngi fi buntu kër Cheikh bi yëpp ñëpp ngi fi barke Serigne Touba ñoo ngi ñaan dajale ngërëma Serigne bi gis nga bin avant màggal nii leen ko defoon set setal loo mbalit la ci dëkk bi ak li ñu set setalaat ndax kenn ku xam ne màggal gi jaaykat yeeg mbalit meeg mbuus yeeg yëpp dafay bari lool barke Cheikh Ibra Fall moo tax boobu ba léegi Baye yaa ngi fi ñëpp a ngi fi barke maam Cheikh Ibra man Fall macha allah maa fi nekkoon yaa ngi nii macha yaa habiballah sukran lak macha allah ñëpp a ngi fi barke Borom Touba yàlla seen jàmm yàgg ñu fekk si sëñam ni Modou Mbenda yàgg fi loolu te ànd ak wér barke maam Seera Fall njabootu borom Tuubaa gépp tabaarkàlla bég na lool barke maam Seera Fall macha allah yaa habiballah sukran laka ngi leen di siyaar bu baax di seen teewaay ci liggéeyu maam Cheikh Ibrahima Fall bi waaw yëpp a ngi nii ci mbalem Touba mu mujj mi ku ne xam ne màggal buy jub si dañuy bale ginnaaw màggal itam dañuy bale ñoo ngi am mbégte bu baax ak kontaan ci seen teewaay murid nag ba ñu xëyee ba léegi tàmbali nañ ci marché okaas jaar fii ci tournalu gaar bu ndaw jaar fii ci virage bi jëm fii ci gaar bu mag bu ñu fa jógee itam dañuy daal di wër corniche rek toppee ko noonu incha allahu rabbi jërë ngeen jëf. liggéey bi tax di leen wax ne maam nii rek la ndax liggéey bi maam Serafal moom lépp lu koy jëmale kanam nga di ci dox rek maam say mbir moom foo mën a nekk day jëm kanam loolu moom ala kulli noonu la noonu la demee maam ñi ngi soññaat baax wax ni maanaam gis nañ seen taxawaay te li ñuy liggéey rafet na am na solo maanaam suñ bi gis na ko maam daal am nañ contentement bu wér a wér daal ci seen kii maam ñi ngi leen ñaanal daal maam suñu borom jëmal leen ca kanam a kanam ci barkeb maam si Ibrahima Fall Boor Diallo bisimilah suñu alsan wali wali